salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ba léegi nag ñoo ngi wéy ci saison 7 bi euh, ñu jagleel ko li ñuy wax gëstu ci wàllum science ak xarala yu bees yi ñu fas yéene ci ànd ak université yi nekk Sénégal yëpp yëpp yëpp tey nag ñoo ngi ci deuxième épisode bi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor euh, semaine bii passée la ñu defoon premier épisode bi àndoon ci ak euh, docteur Marie Ndiaye nekk directrice labo ELI 3 euh, ñu defoon ak moom benn waxtaan bu am solo ci lan mooy euh, recherche scientifique et technologique maanaam gëstu naka lay doxee lan mooy njëriñam et cetera tey nag ñoo ngi ci épisode 2 dañu ciy ànd ak suñu beneen invité dugg ci biir a ci affaire recherche yi ak ci projet yi waxtaan ci benn projet bu ama am solo bu ñuy doxal fii ci frontière Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau te mu jëm ci wàllum wérgu yaram maanaam naka lañuy def ba toppatoo wala aar nit ñi nga xamante ni dañuy dund ak euh, doomi jàngoro bi ñu naan VIH naka la ñuy war a euh, jëfandikoo xarala yu bees yi aussi ba mën a ràññee toppatoo euh, doomu aadama yooyu noonu donte sax tooguñu benn place tey ñoo ngi Sénégal suba ñoo ngi Gambie gannaaw suba ñoo ngi Guinée Bissau parce que dafa nekk ay réew yoo xamante ni dañoo ceeganante trop te seen population yi presque benn lañ donc pour waxtaan ci projet bu mag boobu nag dañu siy ànd ak suñu invité tey bi mu nekk docteur Youssou Dieng nekk jàngalekat. gëstukat fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor mais aussi def benn liggéey bu ama am solo ci projet bi nga xamante ni moom lañ nar a waxtaanee tey donc docteur nuyu nañ la. fay nañ la monsieur Digo man euh, Youssou Dieng lan may euh, wax donc enseignant chercheur la ci département informatique bu université Assane Seck bu Ziguinchor. comme ni ko mhm. waxee. Mhm. maa ngi am euh, mbégte ak contentement. Mhm. waxtaan ak yow ci. projet bi nga xamante ne euh, mi ngi porté si mbiru wér-gu-yaram si euh, diggante ñetti réew yi muy Gambie Sénégal ak Guinée-Bissau mhm, macha allah alors je pense que bi ñuy euh, bi ñuy def préparer épisode bi sax lire naa sa ay articles yu bëri jàng naa ci lu bëri bëri bëri sax je pense que tey ji nii auditeurs yi dina ñu am chance déglu la nga waxtaan ak ñoom si njëriñ bi ci ci dinañ ci am njëriñ dinañ si jëriñu lu bëri à travers projet bi nga xamante ni yaa ci liggéey liggéey bu am solo alors ñu dem directement kon ci waxtaanu tey bi maanaam la recherche scientifique et technologique euh, au service de la santé suivi des personnes vivant avec le VIH dans la zone frontalière entre le Sénégal la Gambie et la Guinée-Bissau alors tey fépp fu ñu mënta dem ci àdduna bi je pense que ñëpp xam nañu lan mooy VIH mu nekk benn virus boo xamante ni day joxe doomu jàngoro bi ñu naan sida mu nekk feebar boo xamante ni feebar bu doy war la donc laaj ñu taxaw képp koo xamante ni moo ngi dund ak jàngoro boobu noonu alors fii ci frontière Sénégal Gambie ak gine Guinée-Bissau euh, dem ak dikk bi nag bëri na trop parce que population bi comme ni ma ko waxee sànq benn lañu mais euh, réew yi aussi benn kenn ku ci nekk am na na gérer say say say say malade donc euh, ki nga xamante ni dafa feebare Sénégal dem Gambie naka lañ ko war a suivre. ki nga xamante ni dafa tawatee Guinée Bissau ñëw Sénégal naka la ñu war a yeggalee traitement am donc loolu yëpp ay question la donc lëkkale système yooyu nag nekk na loo xamante ni lu am solo la war a doon pour mën a saafara jafe yi nga xamante ni mën nañ ko euh, jànkuwanteel ci euh, ci ci système yooyu noonu. loolu moo tax nag ñu wax ñu war a waxtaanee tey projet bi nga xamante ni euh, moom la docteur Dieng war a waxaat nag ñun incha allah alors docteur Dieng naka nga ñu mën a expliquer projet bi naka la juddoo ak lan moo nekk ay objectifs objectif am. Eh, jërëjëf monsieur Diago dama amoon ci envie xaw a euh, remodifier tuuti sa sujet bi. ok euh, su fekkee permettre nga ma ko. bien sûr bien sûr. allô oui donc maa ngi envie. au, euh, au, lieu de la science et technologie au service de la santé, c'est mmh. l'informatique au service de la santé comme informaticien là. Donc ouais. l'informatique fait partie de la science et technologie, mais pour être plus précis, mhm. man maa ngi ko doon tuddee informatique l'informatique au service de la santé, cas du VIH SIDA transfrontalière entre la Gambie, le mhm. Sénégal et la Guinée-Bissau. Machallah, ok, ça euh, marche. Euh, so, Mhm. soo xoolee loolu mooy que ne informaticien la to xam naa ne informatique comme ni ma am habitude wax mooy que ne informatique mi ngi mel ni euh, taxawaay bi nga xamante ne oxygène moom la am si euh, yaramu doomu aadama informatique taxawaay boobu moom lay taxaw si euh, science et technologie ok donc euh, boo xoolee adduna bi actuellement informatique dafay mel ni moom mooy euh, euh, créer li nga xamante ne mooy sunuy jumtukaay fi nuy liggéeyee fi nuy dund même sunu xalaat sax informatique daf ko commencé di nu formater pour que ñu xam ñu am na nuy xalaatee ak neneen donc informatique pour jox santé dafa yaatu ndax. boo xoolee lu bëri ñuy wax télémédecine mhm. euh, benn fa allo waaw dafa mel ni connexion bi mooy xaw a euh, dagg yenn saa yi quoi allez vas ñu lay dégg bu baax a baax waaw connexion mooy mooy mooy mhm. donc euh, dama doon wax ne informatique médicale domaine la boo xamante ni man na ne domaine bu yees la boo xam c'est à part entière au niveau de la science donc euh, mën nañ say gis euh, télémédecine mën nañ say gis aide au diagnostic mën nañ say gis système euh, d'information hospitalière et mën nañ say gis dossier médical informatisé te yooyu yëpp ay domaine la yoo xamante ne mën nañ see gën a xuus ok wante projet bii nga xamante ne moom moo nu tax a jóg yaa ngi koy mën a xool si objectifu ONUSIDA ok ONU SIDA. Euh, benn objectif bu muy wax les trois quatre waaw les trois quatre-vingt-dix de de ONU SIDA mooy que ne euh, gëstukat yi gis nañu ne pour ñu jële fi SIDA il faut que juróom-ñeent ñetti juróom-ñeent fukki yi ñu matal ko mooy que ne képp koo xamante ne am nga jàngaroy SIDA bu ñu jëlee téeméer yoo jël juróom-ñeent yi xam ne ñoom ñi nga jàngaro yi Euh, boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñëpp xam nañu ne ñi ngi ak jàngoro ji boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ñi ngi jël seen traitement antirétroviraux te boo xoolee ñi nga xamante ne ñi ngi jël seen traitement normal juróom-ñeent fukk yëpp dañuy dem dañ koy jël ba dootuñu mën a tey gis sida si seen yaram bu nu demee ba nga xamante ne ñetti juróom-ñeent fukk yooyu at jot nañu ko mat na sidaa dina dina dina fay ci àdduna donc moo tax mu nekk objectif ONU sida voilà mm-hmm. léegi sunu projet bi nag foofu la taxaw euh, si fi nga xamante ne moom mooy euh, zone frontalière entre Sénégal Gambie et Guinée-Bissau ñëpp xam nañu population bi ni ñu jaxasoo. Mm-hmm. am na ay euh, ay ay études ay gëstu yoo xamante ne wane nañu ne population bi dañoo jaxasoo tellement que population bi dañuy bouger tout le temps dañuy dem di ak dëkk. am na benn étude bu wane ne boo xoolee jigéen ñi juróom téeméer yoo jël juróom-ñett fukk dinañu déplacé wu ñi nga xamante ne ñi ngi am âge yu quinze à vingt cinq ans dinañ déplacé wu lu mat juróomi weer si benn dëkk déplacé wu góor ñi nga xamante ne ñi ngi entre vingt ak quarante ans ñoom ñëpp dinañ déplacé wu euh, à à hauteur de quatre vingt deux pour cent euh, si juróom benn weer ndax ndax boo xoolee population bi dañoo jaxasoo da ngay gis benn famille boo xamante ni benn pàcc bi mi ngi Guinée Bissau beneen bi mi ngi Casamance beneen bi mi ngi ak euh, activité économique yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ne dafay tax ñii dañuy jug pour des activités saisonnières ñu dem euh, wuti ay caju wala yeneen wuti liggéey ñu fa pendant te boo xoolee feebaru euh, sida dafa doon feebar boo xamante ne bu dee da ngay jël traitement yi da nga war a topp traitement yi ni la ko médecin bi joxe soo ko toppul normalement rek feebar bi day gën a soxla gën a mën a muté sax ok euh, boo xoolee aussi si zone boobu prévalence su VIH bi dafa dafa dafa dafa dafa yokk foofu dafa gën a euh, euh, mm-hmm. mag foofu. ok donc il y aussi boo xoolee. problème yi nga xamante ne moom mooy am ay statistiques yu fiable mën a xam ñan ak ñan ñoo am lii ak ñoo dëkk fii loolu dafa doon loo xam lu am lu am jafe-jafe la ndax comme population bi dañuy bouger donc boo xoolee aussi comme population bi dañuy bouger pour nga jël ay médicament nga ne léegi dañ koy jël teg ko fii hôpital Ziguinchor wala hôpitalu euh, bu nekk Guinée nangam mën nga ko fa teg mu am ñoo xam dañoo jóge Guinée ñëw jël médicament yooyu foofu donc faux c'est totalement calcul yi noonu exactement si si donc euh, pour assurer suivi daal voilà dafa bëri ay jafe-jafe yoo xamante ne dafa relier wu ak euh, loolu donc pour relever défi yooyu si lañu taxaw di liggéey Euh, ak euh, ONG bi nga xamante ne moom mooy euh, Enda Santé ak ay naataangoom yu nekk Gambie ak yu nekk Guinée-Bissau pour mën a relever difficulté yooyu donc li li nga xamante ne moom mooy contrainte yi mooy. lépp loo xam dañ koy dañ koy euh, def dañuy jéem a minimiser li nga xamante ne moom mooy le coût coût implantation parce que boo xoolee structure sanitaire yi nga xamante ne ñoo ne si zone yi. ok euh, duñu dëkk yoo xam yu am doole lan donc lépp loo fay def doon loo xamante ni dafay doon euh, lu luy demander ay ressources yu bëri léegi Enda santé ak ñi mu àndal jot na noo def liggéey bu am solo mooy que Euh, gëstu nanu gis ne ku nuy suivre euh, sida mu jóge fii dem si beneen dëkk lan ak lan lan war a mën a xam si moom pour mën a continuer suivi bi comme ni nga xamante ne noonu lan ko doon suivre fa mu jóge euh, ñu def ko benn fiche de référence synthétique bu nu bu nu bu def sur place maintenant loolu li ko indi mooy que ne dañoo booloo def ay concertation ay réunion yu bëri mais dañoo dem ba si biir ñu gis ne fiche boobu dafa am ay jafe-jafe ndax fiche bi boo ko jëlee nga jox ko nit ki muy dem mën naa am mu dem si yoon bi fiche bi mu réer ko bu demee foofu donc daatu dootul amati njëriñ yenn saa mu am ñoo xamante ne xëy na tukki daf leen a bett wala ñoom ñu dem te waxuñu kenn dara dem si foofu ne dañuy dem faju ji te feebar ñu xam nan lañ la doon faje pour ñoom ñu xam pour lay faje ndax pour ñu pour ñu trouver li lay faj garab yi dañoo bëri te pour ñu trouver li lay faj il faut que médecins yi def ay yu bëri pour xam sa faj ban faj la léegi nag boo toxoo dem fenn il faut que ñoom ñu xam exactement ban faj lan lay faj ban protocole lan lay lan lay defal donc yooyu soxla moom lan soxla moom lan defoon si fiche bi donc ñi nga xamante ne nag dañuy réeral fiche day doon problème ñi nga xamante ne dem que duñu am fiche de référence dañuy am problème moom la ñuy wax autoréférence ndax dañuy soxla laaj médecin bi nga xam moo la doon faj fa nga jóge woon lan nag lan lan la doon faj te boo xoolee ñetti dëkk yi ñii dañuy wax anglais ñii di wax portugais ñii di wax français wala donc ñaar ñi même boo jëlee téléphone nga jéem a woote ñoom ñaar duñu déggal donc difficulté boobu moom la ñu amoon euh, si la ñu ñëw si ñun ñu dématérialiser fiche boobu euh, def benn plateforme boo xamante na permettre ki nga xam dafay faju fii bu jógee di tukki day wax médecin bi rek médecin bi def si plateforme bi euh, li nga xam moom la war a def léegi bu demee foofu médecin bi koy accueillir foofu dina gis si dossier am information yépp yi nga xam moom moo war ci moom pour mu faj ko comme ne moom bougé wul su amee sax koo xamante ni dafa fàttee jaar ci médecin bi dem directement fale kooku mu fekk foofu moom dina mën a dugg si plateforme bi daal di remplir li muy remplir automatiquement médecin bi ko doon fii dina mën a am information ko am na patient bu dem si benn endroit te soxla na nangam ak nangam kooku renseigner ko mu mel ni moom ba muy dem dafa am euh, mm-hmm. fiche bi donc loolu la ñuy wax autoréférence so bu demee tim bu gisee kooku voilà bu gisee kooku médecin bi nga xam moo ko doon suivre fii man na am retour que patient bi dem na foofu ba ñu ngi koy suivre ndax loolu tim jafe-jafe la woon ndax bu fekkoon da nga ne kam kamu fekki foofu day woo kii wax ko ne sa patient ñëw na mais bu bu fekkee kooku portugais lay wax kii di wax français ñoom ñaar duñu mën a déggante wala wala mooy wax anglais donc loolu difficulté bu mag donc loolu lañu def ñi ngi ko def si euh, li nga xamante ne voilà moom ay si euh, pilote yu choisir am na ay médecins yoo xam ñi ngi siy liggéey ak assistants euh, sociaux donc pour gàttal Mm-hmm. mën naa yemal si si si si alors je pense que fi mu toll nii euh, xam comprendre nañ euh, problème yi nga xamante ni moom moo existé ba tax tey ngeen euh, projet boobu juddu tey jii nii c'est-à-dire mobilité nit ñi te war nañ comme ni ñu ko waxee sànq rek war nañoo xam ni ku nekk fan la jógee historiquement naka lañ nañ ko traité. pour mun a yeggali traitement am ak ku ñu mos a naka lañ ko war a mun a traité donc loolu yëpp nekk na ay euh, jafe-jafe yoo xamante ni même affaire langue bi nga wax ni sax dafa nekk jafe-jafe parce que su fekkee ñetti dëkk yi dañuy wax ñoom officiellement ay langue yoo xamante ni bokkuñ français anglais portugais donc même seen dialogue seen biir buñ ko naree def ci ay téléphone wala ay fiche bonam dina xaw a compliqué trop donc comme ni nga ko waxee aussi patient bi nga xamante ni mu ngi nekk Sénégal doon faju ñu ko joxee fiche mun na dem réeral ko ci yoon bi su yeggee beneen dëkk. lan lay wax dootuñ xam naka lañ doon ko fajee historique bi dañ koy perte donc loolu yëpp tey nag comme ni nga ko waxee rek da ngeen defar benn plateforme boo xamante ni mooy boolante loolu yëpp nga xamante ni képp ku ci nekk foo mënta nekk ak pays boo mënta nekk rek réew boo mënta nekk dangay ngay a jokkoo ak sa moroom yi na docteur yi pour mën a xam patients yi naka lañ leen doon traité pour mun a yeggale seen traitement bi ak dëkk bu ñu mënta nekk donc je pense que loolu am na solo trop trop trop mais li ma bëgg noo xam déjà mooy euh, après après loolu mooy. Euh, euh, yéen en tant que ay chercheur ci laboratoire wala en tant que ay informaticien lan moo nekkoon seen rôle euh, lan moo nekk seen rôle sax lay wax ci projet boobu noonu exactement ak nag ngeen ciy liggéey waaw ñun en tant que informaticien comme ni ma la wax. Mhm. bi nga xamante ne ENDA santé ak ñi muy liggéeyal am nañu jafe-jafe yooyu ñëw nañu gis ñu ñun si lanu dem ànd ak ñoom dem jàngi. Euh, xool seen problème bi nu am daanaka jàngaat lay doon parce que dafa dem ne dafa dem danoo dem ba mel ni ku jàng métier bi nga xamante ne ñoom ñooy faj mbiru feebar uh-huh, uh-huh. dem si hôpitaux yi yi xool ànd ak ñoom ñuy liggéey di di di di liggéey ensemble di waxtaan ensemble di daje ba ñu xam lan mooy seen problématique après si la ñuy doog a proposer solution euh, solution par rapport ak euh, loolu léegi bi bi ñu ko proposé après si la xool am yeneen euh, gëstu. Mhm. yoo xamante ne. dañ ko war a def si mbir euh, lu ñuy wax perspective yoo xamante ne dañ si war a dégagé wu euh, dañ si war a génne yoo xamante ne ay perspective wu recherche la. ndax bi ñu bi ñu bi ñu demee di leen rencontré gis nañu ne am na onze sites pilotes yoo xamante ne ñi ngi si projet bi. Euh, taxaw temm di xaar sunu euh, proposition onze sites pilotes yooyu am na ñaar yu nekk Sénégal ñett yu nekk Gambie ñett yu nekk Guinée Bissau ak euh, ñetti sites yoo xamante ne ay association personne vivant avec le VIH ndax boo xoolee le VIH dafa doon maladie boo xam dafa complexe tellement que euh, médecin bi lay faj sax malade bi si boppam mën na ko ëpp xam-xam si mhm, feebar bi mhm. am lu si feebar bi loo xam médecin bi amu ko donc ma ma sos euh, patient seen bopp dañuy bokk si faj bi donc dañu regrouper si ay association yoo xamante ne ñoom dañuy man di euh, gise ci seen biir di waxtaan ci seen biir ak euh, di dem euh, xeex yenn jafe-jafe yi nga xamante ne dañ koy faral di rencontrer mm-hmm, soo mm-hmm. xoolee aussi ci groupe boobu yëpp am na nañu dix neuf médecins yoo xamante ne ñu ngi ci projet bi ak juróom-ñeent fukki assistants sociaux yoo xamante ne ñu ngi ci biir projet bi ñun bi ñu développé plateforme bi ba pare gis nanu ne ñooñu bu nu demee di faj wala association yi euh, association de personnes vivant avec le VIH bu nu demee di euh, dialoguer wala assistance sociaux yi bu ñuy liggéey danuy produire ay ressources ay informations. te boo xoolee euh, système sanitaire dëkk bu nekk dafa am ay information si gis nañu ne hôpital yëpp yemuñu ay niveau dafa am hôpital de niveau un niveau deux niveau trois de niveau bu nekk dafa am ay jumtukaay yoo xamante ne moom moo fa am ok mën nga jóg nga ne da ngaa bëgg a def benn analyse mais ban hôpital nga ko yóbbu léegi selon information yi nga am mën ngaa xam analyse bi nga soxla si hôpital tel la ne mais amul hôpital tel donc yooyu yëpp ay information la yoo xamante ne patient bi euh, euh, médecin bi daf koy faral di soxla buy yebal benn malade pour que mu dem defi yenn euh, analyse yi wala yenn faj yeeg yu demee noonu donc yooyu yëpp ay info système la yoo xamante ne mi ngi si mhm. soxla nañu recenser ko sous forme de cartographie beneen mbir bi mooy euh, ànd nañu ak médecins yi Sénégal ñu ànd dem euh, fekk seen nattango yi nekk Gambie ñu toog di waxtaan si mbiru faj bi da gis ne Sénégal dina am médecin nu muy fajee noo xamante ne dafay wuteeg Gambie na muy faje wala ka nekk Sénégal am benn difficulté faj benn mbir wala mu euh, solutionné benn mbir alors que ci nekk Gambie trouvé na solution boobu ba mi koy doxal comme ni ko war a doxee. léegi ce qui fait am na ay connaissances yoo xamante ne mi ngi wu ak euh, métier bi boo xamante ne ñàkk koo partagé dafa doon gàllankoor si faj bi léegi si moo indi nag mu am benn module boo xamante ne dafay nekk gestion des connaissances pour permettre. partager connaissance yooyu ressources recenser connaissance yooyu décrire leen partager leen pour que benn système informatique mën ko exploiter. ñu mën see def aussi euh, si si système bi parce que système bi bi ñu ko defee en place def nañu architecture boo xamante ne euh, premier volet bi moom mooy plateforme bi mais euh, cartographie cartographie des ressources day nekk beneen volet gestion des connaissances nekk beneen volet. ci ci architecture boobu léegi yooyu moom la ñuy doxal te am nañu wala bu nekk am na nañu benn doctorant boo xamante ne mi ngi si inscrire te projet bi ñi ngi koy topp voilà pour pour que vraiment ay problématique de recherche parce que am ay ontologie yoo xamante ne ñooy nekk si ginnaaw yu ñuy defar après dina mën a fexe ba euh, données yooyu ñuy am information yooyu ñuy am ñu mën ko exploiter dans le cadre de l'informatique, de, de l'intelligence artificielle, avec de l'inférence et mhm. de la prédiction, mhm. euh, mm -hmm. si si ouais. moom moom lay wax ni sax moom laa bëggoon a euh, jàll ni sax c'est-à-dire mooy résultat yi nga xamante ni am ngeen ko euh, ci projet bi parce que comme ni nga ko waxee rek man bi ma xoolee touti documentation bi euh, gis naa ne am na ay modules yu bëri yoo xamante ni moo nekk ci biir et comme ni nga ko waxee am na ay doctorants yoo xamante ni ñu ngi travailler ci module bu ci nekk alors man ma a épaté bi ma gën a bi ma gën a attiré sama attention mooy bi nga xamante ni mooy mooy permettre ñu mën a identifier euh, patient bi ak fu mu munti nekk c'est-à-dire boobu ak vérification boobu nekk na loo xamante ni lu am solo la et maa ngi exhorter nit ñëpp ñu dem liir article yi ngi ci bind et tout ça parce que dafa nekk identification boo xamante ni c'est par la voix nit ki ci kàddoom la ñuy mën a def ba xam moom mooy kan. c'est-à-dire pour mu ko identifier ak moo xam mu nekk Sénégal moo xam mu nekk Gambie ak euh, yu demee noonu et je pense que loolu euh, du ñàkk ne dinañ ci ñëw ci yenn épisode tu waxtaan ci gën a xuus ci technique bi naka lay demee ak doctorant yi ci travail ak yu demee noonu parce que déjà comme résultat la c'est-à-dire ay résultats yoo xamante dañ koy mën a génnee ci système bi buy dox tu dinañu mën a permettre ñu jàng davantage euh, ci maladie bi ak ni muy communiquer seen biir ak maladie ak patients yi naka la circuler ci euh, sous région bi ak yu demee noonu mais aussi partage d'expérience bi nga wax aussi daf ci am solo c'est-à-dire xam-xam bi nekk Guinée ci wàllum pajum euh, sida ak yu demee noonu ñu partage ak yeneen euh, pays yi nekk Sénégal aussi ñu partage ak ñeneen et je pense que bu may comprendre bien loolu yëpp dafay disponible ci plateforme bi nga xamante ni proposé ngeen ko. voilà mi ngi noonu hmm. bi nga Mhm. benn problème la boo xamante ne un problème même national pour dépasser même euh, juste le cadre Gambie mhm. Sénégal si si boo xoolee ci plan Sénégal numérique deux mille dix huit euh, ñi ngi amoon option de renforcer le système d'information en place un code unique de notification pour les bénéficiaires de suivi des personnes vivant avec le VIH a été préconisé donc ñun dañu bëggoon euh, si système suivi VIH bi parce que comme maladie la boo xam dafa xaw a sensible di nga ñu diagnostiqué ko ne kii dafa am VIH euh, mais euh, il y a le ce le déni de la maladie kenn du ko bëgg a am am na ñoo xam dañ leen koy diagnostiqué ñu xam ne am nañu ko mais dañuy fexe dem si beneen hôpital boo xam ne xamuñu ko ñu mu ñëw fa ne dafa malade xamul lu ko dala yu demee noonu léegi médecin boobu nekk fa di tâtonner alors que bu fekkoon xamoon na ne moom il est séropositif automatiquement dina ko mën a prodiguer soins yi nga xam moo si war mais dañuy perdre temps avant nuy xam euh, ni nga xamante ne noonu lañ koy fay te li ko waral mooy que ne amul benn code d'identification mhm. euh, bu baax boo xamante ne day mën a permettre ñu xàmmee ñi nga xamante ne euh, am nañu wala amuñu ko donc problème identification bi dafa doon loo xamante ne problème bu Euh, problème bu bu bu am solo la. ok si euh, mooy suivi bu euh, patient yi. te te code boobu aussi comme dafa sens bëggunu mu doon xamante ne nit ki dañ ko koy xàmmee ne gis gis ko rek ne kii dafa am VIH wala nangam ak nangam donc faut ñu tenir compte de c'est la sensibilité de la question pour trouver vraiment euh, la Si, si, si, si si alors comme ah, ah vas-y vas uh-huh. au niveau donc des solutions, donc on peut énumérer, euh, il y a euh, le problème de référence euh, quand on référence un patient mooy que euh, docteur bi am na patient boo xam war voyager en Guinée-Bissau mu référence ko à un médecin bu nekk Guinée-Bissau donc nous avons donc mm-hmm. cette cette fonctionnalité mm-hmm. a été donc dématérialisée nous avons la compte référence, c'est une fois qu'on nous a référencé quelqu'un, quand la reçoit, en fait, on a donc une, euh, euh en tout cas, informé celui qui nous a référencé que euh, malade bi ñëw na loolu moom mooy compte référence te loolu tamit euh, dématérialisé nañ ko boo amee tamit malade boobu ñëw te xam xamoo fan la jógee waxul ak médecin avant muy ñëw loolu la ñuy auto autoréférence loolu tamit configuré nañu ko ba nga xamante ne médecin bu connecté wu daal di remplir remplir médecin bi nga xamante moom moo ko doon suivre sa dëkk ba muy jógee mu mën a des informations remplir fiche de référence bi euh, si saa information yi pour mën a continuer suivi bi médecin yi aussi parce que mën ngaa ni sa machine ñu envoyé la benn euh, message mais yow xamoo toog lu yàgg alors que kële mi ngi toog di xaar def nañu benn système d'alerte boo xamante ne euh, médecin bi bu fekkee am na euh, soxla buñ ko soxla si système bi automatiquement dafay am ay alertes yoo xam dañuy signalé wu euh, yi am na euh, am na jaune ak ak bleu. donc def nañu benn cartographie des structures sanitaires chaque structure sanitaire bu nekk ak yi nga xamante ne moom la am comme des ressources travail boobu ñu ngi koy continuer boo xoolee aussi. association de personnes vivant avec le VIH dañ doon nekk euh, des associations di regroupé di waxtaan si seen biir te loolu dafa am solo euh, ñu mën euh, socialement sociologiquement dafa am solo pour feebar bi dafa doon feebar boo xam dafa diis mhm, maintenant dajole bu muy seen biir day tax vraiment ñu fàtte feebar beeg yu demee noonu léegi loolu boo xoolee daanaka dafa gën a am sens sax mooy que ne dañu defaroon benn forum boo xam dina permettre ñi nga xam ñoom ñoo doon regroupé wu noonu même bu ñu déplacé wu ñu man à travers le forum di waxtaan di gisee si seen biir te boo xoolee mbir moo gën a am sens actuellement avec pandémie parce que imaginez ki nga xamante ne loolu moom moo ko doon vraiment jox dundal mun am sens bi yoon am sens si pandémie bi ñooy bloqué leen nii ne kenn dootul demati fenn kenn dootul regroupé wu donc ñooñu nan la ñuy def bu nu mënatu la euh, gise te alors que gise boobu si faj bi léegi forum bi def au niveau de la plateforme forom bi aussi def nañu ko pour médecins yi pour que connaissance yi nga xamante na ak information yi nga xamante ne mën nañu ko am euh, ku nekk Sénégal ak ku nekk Guinée Bissau ak ku nekk Gambie ñu mën ko partager bi mën a dialoguer pour mën a échanger vraiment euh, par rapport ak situation particulière yu nu mën a am Euh, plateforme bi aussi tenir na compte si ñett langues yi mooy anglais français portugais li nu si yëpp nekk français moom day gis français ki nekk portugais day gis portugais te du nu am benn. ok cest à traduction automatique la quoi pour ñu pays bu ci nekk. voilà automatiquement lay traduire. Mhm. léegi ñi nga xamante ne euh, mooy problème mu sécurité bi aussi. Euh, mhm. jël nañ si mhm. am donc yooyu daal mooy yi nga xamante ne moom lañ énuméré comme résultat. Euh, voilà. résultat yi je pense que projet bi franchement wax dëgg yàlla am na solo trop trop trop trop te mënoon nañ ci waxtaan ci aspect yu bëri bëri bëri comme ni mu ko waxee mais du ñàkk ne dinañ ñëw ci point par point avec doctorants yi ak lépp ñu xool ñi ci travailler encore tamit euh, ñu xool naka lañ travailler ci yenn modèles yi nii ci yenn euh, signal vocal yi identification yi comme ni mu ko waxee comme man dama sob informaticien développeur la donc euh, aspect yooyu daf ma daf may épaté trop ma neex trop ci waxtaan après incha allah ci ma question bi ma bëggoon a laajtewaat fii nii mu nekk euh, c'est-à-dire euh, question euh, c'est-à-dire recherche en général day ñu bëri ñu ngi def recherche ci Sénégal am na ñuy trouver ay solutions ci ay problèmes yu bëri bëri mais problème bi moo nekk souvent est-ce que recherche yi ak résultats yi ñi am dinañ koy utiliser cest dire moo tax ñu bëggoon a laajte est-ce que solution yi nga xamante ne yéen a koy proposer état yi ñu ngi koy tenir en compte ci seen décision yi nga ne ñu ngi koy jël ci wàllum xeex ci wàllum santé bi nga xamante ni moom la ñu waxtaanee. alors euh, ñun chance bi nu am si projet bi. Hmm. Euh, mooy que ne euh, boo xoolee li nu li li nga xam moom moo indi projet bi mooy soxla. Hmm. mooy onze pilotes yooyu. Hmm. ak dix neuf médecins yi nga xamante ne ñi ngi travailler ci site yooyu. ak neuf assistants yooyu. di liggéey si mbirum VIH autour de la du Sénégal de la Gambie et de la Guinée-Bissau et même au-delà ndax projet bi c'est un projet boo xamante ne c'est c'est une phase pilote mais projet bi gën na euh, rëy noonu am na neuf pays muy Sénégal les deux Guinées euh, euh, la Gambie euh, nous avons le Mali le Burkina donc tous ces pays-là en fait ce pro ce projet-là intéresse en fait toute cette zone-là parce que c'est une zone transfrontalière maintenant ce projet c'est juste dans sa phase pilote que nous avons limité que lan ko limité euh, diggante Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau liggéey bi nuy comme ñi nuy liggéeyal mooy médecins yi nga xam ñooy faj directement euh, moo soxla bi comme ñoom ñoo ko indi ñoom déjà ñu ngi doon xaar ba nu ñëwee rek automatiquement la ñu commencé di ko implémenter di ko utiliser donc euh, soxlawuñu woon sax dem gis état pour ba xam ndax dinañ ko mën a exploiter ou pas ndax ñoom ñoom ñoo def ñoo dox mbir mi fexe ba euh, ñu ko liggéey ko ba fi mu toll actuellement perspective yi nga xamante ne moom la ñu am euh, pour que ñoom bu ñu produire des ressources ñu mën a euh, defar description de ces ressources yooyu def ontologie yi si war pour mën a def des moteurs d'inférence yoo xamante dina mën a permettre que ñu mën a dugg dans la machine mën a parce que am na phénomène am solo boo xamante nekk na si suivi VIH mooy que ne da ngay am benn patient di ko suivre ba si yàgg bu jekki-jekki réer dootoo xamati fu mu dootoo xam nga defi euh, léegi te loolu baaxul ndax bu ku réer rek automatiquement da ngaa bàyyi sa faj bi nga mhm. doon faju bu mhm. ñëwaatee bi day gën a soxot loolu baaxul moo tax euh, mu problème boo xam lu am solo la bu njëkk bi bi système bi amul woon da nga daan gis koo day jóge Sénégal dem gis Guinée Bissau ñu ne réer na fekk moom ma nga toog Guinée Bissau ah, alors que léegi automatiquement bu fekkee Guinée Bissau lan ne léegi médecin boobu dina ko mën a dugal automatiquement ñu mën a xam ne kii réerul donc euh, perte de vie yooyu day gën a wàññeeku donc am na étude boo sama collègue Ibrahima jób def na ko si euh, bi ñu defaree plateforme ba pare pour wone euh, aspect positif yi nga xamante ne moom la plateforme bi indi par rapport ak réduction perte de vie euh, perte de vie yooyu donc ñun vraiment projet bi souffrirul par rapport ak euh, utilisation ou exploitation résultat ou recherche ndax c'est un c'est vraiment de la recherche appliquée actuellement donc problème bi si on prend ça de manière globale euh, en dehors de ce projet on peut se mën nañu wax laaj ba xam ndax euh, état bi mi ngi exploité comme ni mu war a exploité résultat wu mais loolu tamit je pense que ne bu fekkee état bi euh, nam mën a def ko il faut que mu gën a yokk loxoom wala baral loxoom si li nga xam ne moom may lay accompagner recherche bi pour ça il faut que ay domaine de recherche yoo xam ne daf fay def ay daf def ay moyens pour que képp koo gu ga loolu nga mën a indi ay solution par rapport ak problème yooyu mu nga xam ay problème mu état bi donc loolu xëy na euh, mën nañ ko wax côté boobu mais change bi nu am si projet bi mooy vraiment. Mhm. amul problème par rapport ak nu koy nu koy utiliser quoi si si si si parce que besoin la euh, bëgg-bëgg la boo xamante ni déjà ñi ciy liggéey ñoo ko am déjà ba pare euh, pour mun a gérer patients yi nga xamante ni dañuy circuler voilà. donc je pense que euh, je je pense que loolu. Mhm, vas-y. par rapport ak li nga doon wax sànq ne peut-être ñu am émission yoo xamante ni dañuy jël benn pàcc par benn pàcc si aspect yi nga xam ndax boo xoolee comme ay coordonné euh, projet bi ay ay laay liggéeyee lool ak euh, ñu ànd ak seen i étudiants ku nekk bi liggéey benn pàcc boo xamante ne loolu mooy sa spécialité xëy na man mooy mën naa am xëy na ma réer mais mm-hmm. bu waxtaan bi soxla nanu wax mm-hmm. soxla na ko mën nañ def émission boo xam ne orienté wu. Mm-hmm. Euh, si exactement non euh, parce que foog ñu def ko sax foog ñu def ko parce que euh, personnellement sax man daf ma itteel trop quoi parce que ni ñuy defee traitement identification yi ak signal vocal yi ak enrôlement yi reconnaissance bi modélisation bi et tout ça voilà voilà ak modèle yi ñuy créer ak apprentissage beeg en fait ça ça m'intéresse beaucoup te xam naa ne intéresse na auditeurs yu bari donc loolu foog ñu def benn épisode boo xamante ni dañ gën a xuus ci loolu waxtaan ci incha allah. alors donc du coup je sais que ne projet bi mënoon nañ toog fii ba euh, voilà euh, toute la journée di ci waxtaan parce que bëri na aspect yoo xamante ni mën na ci waxtaan mais euh, incha allah yoon du yem ci benn alors benn question bi nga xamante ni bëggoon naa la ko a ngi nekk ci sud bi tu vois yéen région yi nekk ngeen yeneen initiative yoo xamante ni yéen a ngi ciy bëgg travailler wala yéen a ngi ciy pour région yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci sud bi oui sud bi chance bi nu am mooy euh, dañu nekk si sud bi te sud bi dafa dafa doon dafa riche. Mhm. Euh, boo xoolee euh, si nature bi sud bi dañ dafa dafa doon loo xam dañ ko doté vraiment waaw yàlla may na ko bi boo xoolee au niveau sociologique dafa doon loo xamante ni yàlla daf daf ku leen ko may ndax boo xoolee mën nañu wax ne Sénégal en miniature moom moo nekk fii. ndax lakk boo daal euh, nekk na fii donc sa fii rek nga mën a dem toog ne man mën naa toog fi képp lakk bu nuy wax ci Sénégal man naa gis koy wax fii si dëkk bi fii ah, donc loolu avantage la boo xamante ne mi ngi fi te boo xoolee am na ay recherche yoo xamante ne muy euh, au niveau euh, comment je dirais hmm. niveau de l'environnement ah, beaucoup de choses war nañ ko mën a def au niveau Euh, sociologique lu bëri war na fi mën a génn ak euh, beneen affaire mooy au niveau des maladies aussi euh, mooy la santé war nañ fi def beaucoup de choses léegi am na collègues yoo xamante ni ñi ngi travailler ci aspect yooyu xam naa ne xëy na plus ñuy gën a avancer plus ñuy gën a mën a renforcer ces lien de coopération ndax yaakaar naa ne fii la ñu soxlaa am si benn équipe de recherche sociologue di travailler avec mathématicien ak informaticien. ak euh, franchement euh, merci. franchement. Mhm. ñëpp ñu bokk avec un géographe agroforestier bokk liggéey ensemble ndax euh, lépp ñoo lëkkaloo feebar bi nga xamante ne moom nga boo gisee faj li faj toujours si foofu la ne ndax dafa am ay yoo xam dafa relier wu ak nature bi relier wu ak sociologie boo xamante moom moo ñu mën la ñu mën la faj Euh, vraiment travailler de avec euh, une certaine ci benn euh, booloo euh, ñun ñëpp ay réfléchir euh, ensemble loolu dina mën a indi lu bëri te gis naa ne am na ay collègues yu bëri ñu ngi liggéey ci aspect yu demee noonu. Mm-hmm, mm-hmm. donc mënuma source tellement parce que comme ci projet bi ci laay liggéey. waay si moom mooy responsable laboratoire bi wala. directeur euh, de l'école euh, doctorale wala euh, le directeur chargé de la recherche ou le directeur de la recherche ñooñu dinañ am benn recul boo xamante ne dinañ mën a wax si lépp loo xamante nañ koy def fii en termes de recherche si je pense que ne bu fekkee soxla nanu am aspect yooyu man a mettre en relation avec ñi nga xamante ne moom mooy ñooñu exactement si si loolu am na solo bu baax parce que euh, déjà sax li ma retenir ci sa li nga mujj wax nii mooy fexe ba sociologue bi informaticien bi géographe bi bi ak ñëpp ñëpp médecin bi ñëpp mën a dajaloo pour ut ay solution ci ay problème yi nga xamante ni ñu koy rencontrer parce que comme li ma koy waxee souvent rek informatique outil la technologie ay outil la yoo xamante ni daf ñuy permettre pour ñu mën a régler ay problème yoo xamante ni dañ koy jànkonteel ci àdduna b te problème yi ñuy jànkonteel ci àdduna bi problème mu euh, santé la problème mu euh, gàncax gi la problème mu climat bi la problème mu yeneen ak yeneen ak yeneen donc problème yooyu nag ñi nga xamante ni ñoo ci am xam-xam ci wàllum santé ci wàllum euh, comment dirais-je ci wàllum euh, environnement ci wàllum géographie ak ñoom ñëpp war nañoo mën a boolante seen xam-xam yi ànd ko ak ñi nga xamante ni ñoo am outils yi mooy informaticiens yi ingénieurs yi comme yéen pour que ñu mën a indi ay solution ci problème yi nga xamante ni mooy am alors man li may wax ci sama podcast bi à chaque fois loolu la c'est-à-dire il faut que mu am benn euh, jaxasoo bu am entre ñëpp pour que ñu xam ne ñëpp am njëriñ ci biir tey ki nga xamante ni sax jàngut li tax may def podcast bi en wolof c'est pour boole ci ki nga xamante ni jàngul parce que ki nga xamante ni jàngul français cela ne veut pas dire que amul xam-xam am na xam-xam parce que baykat bi nekk fële boo ko dugalee ci biir processus bi dina la mën a wax problème yi mi am comme ça yow nga mun ko lijjanti donc loolu moo tax li nga wax ni dafa ma frappé trop te dafa am euh, dafa am solo trop trop trop trop je pense que ci jamono bi ñu toll nii alors. Euh, docteur bëggoon naa la laaj aussi naka nga gisee recherche fii ci Sénégal mais aussi euh, est-ce que euh, ñu ngi leen di bu baax ci projet yu mag a mag yi nga xamante ni mu ngi am ci réew mi. alors euh, recherche si Sénégal day ñëwaat toujours si li ma waxoon sànq. Mm-hmm. mooy que dëkk mënula développer bu deful mu am ay ay ay chercheurs yu mag. mu indi ay problématique de recherche yu mag réfléchir euh, proposer ay axes de recherche ay thèmes de recherche ay orientation de recherche yu mag yoo xam ne day am euh, connexion ak euh, orientation wu développé stra plan stratégique wu développement wu euh, dëkk bi donc loolu mënul mënul am donc euh, moom laa doon wax sànq ma ne il faut que ñu renforcer consolider en fait la l'accompagnement accompagnement bi nga xam moom la ñuy jox gëdd bi nga xamante ne moom la ñuy jox recherche bi si dëkk bi euh, bokk na si euh, comme li nga wax projet euh, projet yi nga xamante ne mooy projet de développement wu Sénégal yi yaakaar naa ne lépp loo xamante ne dañ ko tëral dañu war a jël chercheurs yi ñu def ko au pour que ñoom ñu mën a guider orienter mhm. pour que ñu atteindre objectif yooyu malheureusement ma gën a gis mooy que ne euh, yi dafa mel ni dañ leen di fàtte ndax boo xoolee euh, problématique euh, par exemple Covid 19 bi man bi muy doog a ñëw dama gis en France sunu collègue yi nga xam ñoo ne si laboratoire bi yi nuy nekk foofu bu demee voyage d'étude ñu woo leen ñu dem sena di expliquer nan la informatique war a mën a ñëw aider pour que ñoom ñu mën a problématique yi chercheurs yëpp di travailler ensemble ñun bi am mbir mi amee ministère de l'enseignement supérieur woote na pour que ñu toog xalaat mais xalaat bi da dafay mel ni yow kenn soxlawul li ngay xalaat ndax dangay dem bëgg a am donnée benn information système de suivi bi wala li nga xam moo xew si système sanitaire bi am ko données yi nga xamante ne moom lañ jot am nga xam moom lañ doon wut ARSD ñoom ñoonu données yooyu mais ki ñi nga xamante ne ñoom euh, mbiru feebar bi war ko gëstu war a jéem a xool nu koy faje ñoo fexe ba ñu jox nu benn information alors que ñun dañu doon war a réfléchir mettre en place ay stratégie parce que man li xam moom laa liggéey mooy mbiru euh, modélisation algorithmique donc fexe trouver benn modèle confinement boo xamante ne dina mën a permettre Euh, euh, mbir yi gën mën a bañ a tar comme ni mu tare ni mu tare woon wala ñu bañ ferme fermer ñëpp wala affaire yooyu donc vraiment def confinement intelligent genre mbir yooyu man a doon xalaat am na yeneen collègue yoo xam ñi ngi doon liggéey si yeneen aspect mais lu si bëri leen xaw a découragé loo mooy loolu da ngay soxla information doo ko am kenn du la ko mën a loolu loo xamante ne si si si si alors loolu li nga wax moom franchement euh, am na solo waaw man am na benn moment ma nekkoon France euh, Nicolas Sarkozy bi muy doog a yéeg ne dëkk bi dafa fu mu toll te dama kaa war a yóbbu fenn lu mu wax kooku Jacques Attali def loo ko benn étude mu def étude ay étude universitaire ñoo proposé ko mu teg mbir mi ne daf leen dafay dafay euh, dafay appliquer li nga xam moom la étude bi di wax ñu def un plan de suivi benn kii boo xam internet site internet si ngay de mën suivre pas à pas exécution de cette de cette étude là donc lépp loo xamante ne état bi ñu koy def war na mën a am des yoo xamante ne dañuy ñëw accompagner ko aider ko pour que vraiment application bi mu mën a dox comme il faut. donc te loolu dafa doon loo xamante ne lu sooxe la si mm-hmm. sunu. suñu suñu dëkk bi. si si si si franchement euh, li nga wax ni euh, dëgg bu wër peng la tu vois ñëpp teg nañ ci seen bët gis nañ ko euh, mais xanaa di ñaan rek bu fekkee autorité ñu ngi dégg aussi ñu bàyyi xel ci lool mais aussi xalaat naa ne aussi ci sama xalaatu bopp que ne ñi nga xamante ni ñooy rechercheur ñi chercher aussi war nañu ñoom aussi gën a boolantoo seen biir gën di comme ni ñu ko waxee rek gën a partager ay expérience gën a partager ay connaissances tu vois wala sax di organiser gën a wu daal parce que je pense que bañ am doole mais suñu bolontoo su chercheur Sénégal yépp bolontoo woon waxuma sax ci wàllu informatique kese mais ci domaine yépp ñu bolontoo tu vois je pense que loolu war na mën nekk benn force boo xamante ni même parce que état man je me dis que état ay nit rek la yoo xamante ni dañuy représenter euh, euh, population bi donc population bi ñoo leen doole c'est que ñoom la ñuy jox nag pouvoir yi mais population bi seen volonté aussi euh, nekk solo et je que tey yi nekk Sénégal yépp tey muñ dajaloowee nekk na benn poids boo xamante ni benn doole boo xamante xamante ni je pense que dara mënu lañ résulter euh, résister te war nañ mën a joxe ay seen idée même bu fekkee ne duñ ko jël sax gars ñu joxe idée rek parce que je pense que buñ yàggee di joxe ay idée di joxe ay proposition ay solution tôt ñi dinañ ko jël et je pense que ni tey ndaw yi nekk ci suuf aussi dina nekk ay référence ci ñoom parce que tey li may gën a foofu lay daanelee sax mooy euh, docteur damay gis te euh, jeunes yu bari tey jii nii am nañ découragement pour def ay recherche def carrière ci affaire docteur ki nekk ay docteur wala ci recherche bi yu demee noonu parce que peut-être xamuñ xamuñ li nga xamante ni moom la euh, chercheurs yi di def ak ci li ñuy liggéey donc je pense que tey docteurs yi ak chercheurs yi buñ bolontoowee ba euh, créer benn pole boo xamante ni ñëpp dinañ ko xam ci Sénégal ci Afrique ci monde bi euh, jeunes yi dinañ ko gis te dinañ nekk ay dinañ ci jël ay références aussi je pense. wa mhm. wax nga dëgg. mais boo xoolee tim ànd boo gis dafay am benn benn bopp boo xamante ne moom mooy piloté. dëgg la tax état jóg. boo mhm. xoolee. Mhm. Euh, am na ministère de l' enseignement supérieur et de la recherche moom mooy regrouper ensemble chercheurs yi nga xam ñoom ñoo nekk euh, Sénégal euh, am na direction de la recherche loolu moom mooy mais il faut que état bi jox ko pouvoir ak gëdd ak doole bi nga xam moom la war a mën a am pour mën a doxal loolu ndax su fekkee ne chercheur bi si boppam pour mu dem dem en réunion quelque part Euh, moom mooy jëndal boppam pour dem foofu ah, dafay doon loo xam dafay soox ne mm-hmm, mm-hmm. danoo bëgg projection en tout cas une politique euh, bu boobaa dañuy def moyen bi ba nga xamante ne bu ñu soxlaa euh, rencontré wu waxtaan wala def ay kii dafay am moyen yoo xamante ne moom moo leen si dimbali te loolu rek la mën a def regroupé nit ñi ndax nit ñi aussi dañu yor seen famille mm-hmm. donc xëy na nekk patriote patriote toog dundal sa sa njaboot ak yu demee noonu exactement dëgg la donc mhm. aussi ndax euh, malgré tout ça euh, chercheurs yi ñu regroupé di dem si ay conférence di organiser ay conférence boo xoolee domaine bi nga xam moom laa xam muy domaine informatique ñun regroupé woon na si benn association bu ñuy wax ASCI boo xam ne dafa regroupé euh, Sénégal yëpp organiser benn conférence boo xamante ne chaque année dañuy partager les derniers résultats de nos travaux de recherche euh, dañuy toog si conférence bi jéem a réfléchir sur les orientations en termes de recherche et de pédagogie euh, si Sénégal ak euh, tout ce qui est en tout cas les orientations en termes de nouvelles technologies xarala mhm. yu mhm. mu nekk day am conférence boo xam ne dañ koy organiser mais comme bu organiser dañuy dem di ñaan ndimbal université yi ku nekk as tuut ñu daal di def ko ñetti fan mais toogaat ba prochaine mais tout ça dafay cest à foofu la suñu doole yem suñuy côté foofu la mhm. yem état boppam moo man di accompagner si politique bu gën a ngand noonu mën a organiser ak xëy na day regrouper informaticiens yi ak ñeneen ak dugg fi génn fii donc yooyu je pense que ne soxla naanu euh, benn structure boo xamante ne bu gën a am doole euh, buy nekk macha allah macha allah franchement waxtaan bi bëggoon nañ mu continuer bu baax a baax a baax ñu jëriñu bu baax a baax ci sa xam-xam mais ñu ngi lay féliciter bu baax a baax monsieur Dieng ci sa ah, di la remercier aussi ci li nga accepté franchement ñëw ci euh, épisode bi waxtaan ak ñun ci projet bi nga xamante ni projet bu am doole la je pense que sax soo ma ko permettre après euh, dinañ ci discuter pour que ñu nit ñi aussi mën a am accès pour mën a lire projet bi lan la et tout ça euh, am ci tuuti idée xam ci davantage beaucoup plus tu comme ñun aussi dinañ def yeneen effort aussi pour mën a defar yeneen épisode Ziguinchor pour mën a waxtaan ak euh, doctorants yi waxtaan ak techniciens yi ñi nga xamante ñoom ngi liggéey ci aspect technique yi et tout ça parce que euh, wolof tech la ñuy wax aussi tamit alors donc du coup euh, maa ngi lay remercier bu baax lan moo nekk sa mot de la fin. alors xanaa di la remercier vraiment ci initiative bi. Hmm. xawoon naa ci tuuti bi ma xoolee gis ne wolof laa war a wax <laughs> ndax comme liggéey bi nuy liggéey. dafa doon daanaka. Hmm. mooy fa xam-xam. Mm-hmm. nga jéem a gas foofu. Euh, di di di ko wax français wala si anglais nga bëgg a ñëw jël loolu bëgg ko si wolof dafay doon nga xamante ne xëy na comme xam-xam ba nga fay doog a am doo am mooy yi nga xamante ne moom nga war a si wolof ak yu demee noonu te suñu dégg wolof euh, demewul noonu. donc xawoon naa tiit mais euh, <laughs> yombalal nga. vraiment. remercier si initiative bi. Mhm. Euh, di la encourager di la wax ne lii lu am solo la ndax dafa bokk si li nga xam moom mooy vulgarisation recherche yi nit ñi gën a xam euh, lan la ñuy def université ndax lu bëri dañ ko dañ ko xaw a euh, réere mais nit ñaa ngi fi liggéey ma leen di gën encourager di ñaan aussi état bi mu gën a dooleel recherche bi Euh, def ay place ay politique vraiment de recherche et d'accompagnement euh, de la recherche mm-hmm. euh, di encourager aussi jeunes yi ñu engagé wu si recherche bi engagé aussi science engagé aussi informatique informatique discipline xarale bu bees la boo xamante ne soxla soxla nanu ko Sénégal Euh, boo xoolee rek euh, nga xool ñii nga xam ñoo nekk en informatique muy informaticien muy chercheur wala ingénieur nga boole ñëpp dajale leen boo xoolee daanaka boo ko comparé ak benn laboratoire euh, ci France dañuy dañuy war a toll lim mhm. donc nga xam ne kon bëri loo xamante ne war nañu ko mën a jéem a dabe te comme li may wax toujours mooy l'informatique c'est l'oxygène de la science mhm. donc mooy oxygène science la science science si sunu dëkk bi mënul avancer Euh, su fekkente ne dañoo jël informatique bàyyi ko ginnaaw donc maa ngi encouragé vraiment yi euh, nga xam ne université ñu jéem a jël euh, filière scientifique yi te bu ñu jëlee filière scientifique yi ñu jéem a orienté aussi informatique lu bëri loo xamante ne lu nu war a mën a def si informatique te mhm. àggagunu fi si mhm. ñoom rek ma lay ok merci beaucoup ñun aussi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di la sant di gërëm aussi képp koo xamante jàpp na euh, ci euh, préparation yi bañ mën a taxawal épisode bi nii tey ji nii pour waxtaan a yéen ci wàllum projet bi nga xamante ni ci wàllum santé la ak naka la ñuy def ba reconnaître personnes yi nga xamante ñu ngi nekk ci ñu ngi am ñu ngi dund ak doomu jàngoro VIH sida bi tu vois pour mun leen toppatoo pour mun leen aar bu baax a baax ci fépp fu ñu mënta nekk entre Sénégal Gambie ak Guinée donc docteur ñu ngi lay remercier bu baax di wax auditeurs nañu beneen épisode boo xamante ni war nañ ko def Ziguinchor incha allah avant ñu dem université bu Thiès euh, xam naa après dinañ ci waxtaan ak docteur wala ak docteur Marie Ndiaye pour xool naka lañ war a organiser waatee épisode bi nga xamante ni dese nañu incha allah Ziguinchor donc ñu ngi leen di jox dig daje incha allah semaine prochaine ci beneen épisode bu bees bu bees ak podcast Wolof Tech merci beaucoup docteur merci beaucoup à